maaleykum suñu mbokk tante noonu la tàkk ko ñu leen bu baax a baax leen ziar tey ñu ngi fii Kër Massar ko xamante ne kenn dootu ko présenté muy kan muy bébé Aïcha soxna lay nuyu la bàyyi di nuyu mbokk internet yi. gis nga nuyu naa la ziar naa la. Mm. di la jox itam sa wàccuwaay. Mm. di nuyu suñu mbokk yëpp ñi nga xamante ne tey dinañ toog di ñu seetaan. Mm. Euh, di nuyu sama borom kër Habib moo lépp <laughs> nii la ziar la. soxna Aïcha pourquoi jóge lan moo tax question dégg nga lii ma loolu. <laughs> man moom damaa jug juddu rek jóge ba ci dox bi may njàpp nii gars di gaañ bi ma nekkee xale may jàng dox ci laa ko doon dox sama papa di ma dóor li ngay def kon ça veut dire naturel la du man la neex ma ni doxee. jonge nag dañu ne ci deret lay ne man nag wàlli yaane wu ko waaw koy ndax kuy wàlli yaane dëgg du neex day fekk nag sa dëkk dëggul man nag dama judd ci famille boo xam ne dañoo jonge doy waar. waaw ma dugg rek waaw kay ma nàmp rek. waaw maa maa ngi ci lépp. maa ngi ci comédie bi mm. maa ngi ci daraam bi mm. ndax man ñaar yëpp laa mëne mm. te fu ma ci waay woo rek pare naa pour nekk def ci lépp lu ma mën incha allah. temps yi moom dañoo gis daan xew. déggal lool xew nga macha allah. <laughs> gis nañu benn émission boo xamante ni ça bouge. Ah, euh, la ci benn question boo xamante ni doy waar. gis mm-hmm. sax euh, sa sa sa mbokk yi ñoom sa ñoom dañoo meroon si loolu noonu. ci mm, question sama fans sa fans meroon nañu <laughs> ñu bëri tamit dañoo meroon sax. waaw euh, kooku baaba la. ba waaw baaba la. <laughs> sama xarit la. dafa mm-hmm. tuuti gàtt. dafa tuuti gàtt. waa. yàlla xam na ne man defuma loolu muy problème ti sais pourquoi parce que baaba sama frère la moom moo ma mag mais dañu miinante telle sort que ne dama koy wax lu ma neex mu may wax moom tamit lu ko neex këram gi am na benn TikTok bu mu def man ak moom déjà on a beaucoup on partage beaucoup de choses ensemble ci lépp kon moom bu ma nee tuuti te amaa amaana miinante bi moo dem ba feeñ tey ci plateau bi ba tax mu wax ma moo boobu mais nag sama fan si yëngatu nañ mais man jéggal naa ko mm. xanaa de suñu frère la mm. waa kon nañ ko jéggal te xam naa dootu ko defata ndax li ngeen ko sàjj jëmmem <laughs> réew mm. ah xam na ne am naa fi baat waay mais état nekk tamit jug uh-huh. ko loolu moo sa fan si métoon nag yow bul fàtte yéen moom moom baaba mm-hmm. invité wul ci plateau am mm-hmm. ndaanaan international la invité mm-hmm. kon bu waxee ci tuuti gàtt te man ma tuuti gàtt damaa war a jóg wone na man tuuti ma gàttuma réew mi yëngu xanaa gisoo Salanzi réew maa ngi def lu ko neex <laughs> mu ngi wàcc ba zéro mu ngi wàcc ba zéro mais loolu du dara damay jóg défilé wu ñu ngi ne waa kii tuuti gàtt ba lool la dafa am ay mots yoo xam ne bu la ko nit waxee danga koy valoriser parce que dama ko tuuti te gàtt te fier ci loolu nag man saw <laughs> je suis fier léegi yow ku romboon ku par exemple yow ku romboon léegi waxaloo. Mhm. ay ah. damay neex. xam nga lu tax yàlla moo ñu xam moo xol lu ko saf. Mhm. def ko ci jëmmam jiitoo mhm. te bu ko neexoon def ma leneen tax gis nañ fi tamit ñiy prier di supp jaloñu ñii di raam y a beaucoup de choses ici kon bu ma defee tuuti gàtt kese kese ma yor samay ñaari tànk yor samay ñaari loxo. yor sama jëkkër di ko gérer comme il faut ah man bii tuuti neex na ma de waaw. nga ay bu baax. yaa ba mu teree bien. <laughs> ci ci ci moom mari dégg nga lool. xam nga ne maa ngi lay toppatoo <laughs> moom nee na waaw <laughs> maa ngi koy yëg fi ma toog nee na waaw. ok voilà ñu gis parce que dañoo gis ne nga wax ci ay secret de mariage mhm. ay jigéen ñi muy seeyeg. Ah, <laughs> ay appel vidéo yooyu yëpp maa ngi koy dégg nga koy wax. te xam naa da ngaa ragal appel vidéo. man dama ko ragal bu baax a baax parce que léegi nii parce que léegi nii ci boppam sax ñemetuñu lool noonu. mais man maa ngi ciy wax ci kaw plateau bi. Mhm. ma ne sa jëkkër day nekk de loin. Mhm. nga war ko woo waxtaan ak moom sol lu sexy sol lu sexy du cadre ko nga sol loo xamante ne sa yaram day nekk ci biti ba en cas où bu la enregistré ngeen dund yàlla tere ba ngeen divorce dina ko mën a téye pourcentage non non mën nga sol sa bu rafet bu baax wala lu la neex ngay waxtaan moom fekk doo génnee sa benn cër boo xam ne ëllëg di nga ci am déception parce que bu leen fàtte ne sëy am na mais tàqalikoo itam day am on sait jamais dans la vie nul ne peut échapper son destin te kenn mënul xam aussi li nekk ci sa kanam ba tax na mën ngeen wax ak seen borom kër yi appel vidéo mais bu leen dara jaral ngeen wone seeni awra loolu moom duma leen ko wax keroog dama abrégé wax ji rek leeralu ma ko à cent pour cent mais sa làmmiñ yaa ko moom sa xel ko moom mën nga ko utiliser almeno mën nga ko utiliser di waxtaan ak moom ba moom mu kontaan <laughs> ba arrivé paye rek waaw après bu ko defee kuy wàlli nag day fekk sa dëkk tëggul su boobaa nga am sa jabar ju baax toog ci senegal mu nekk foofu nga téye ko ci waxtaan ba mu kontaan ba mu def arrivé payé est que dina génn di ko wàlli yaani du ko wàlli nee naa la góor bébé la ni ngay jàppee sa doom sangu ko ba mu set toppatoo ko def ko puudar ba mu naay tëral ko mu tëdd sa jëkkër noonu nga koy jëlee di ko toppatoo comme il faut mais est góor ci waxtaan dong mën ko yëngal. waxtaan kese kese ci waxtaan yi. am na ñu mën a yëngal góor ci waxtaan ndax li ma lay wax am na fu ma ko teg mais am na ñoo xamante ne waa kër gi nangam ñu ngi si jaam nangam gaz bi jeexoon na nangam moom kay bi xale yi wàccee ah, ah, ah ba sa jëkkër coupé quelques minutes da loo ko mën a wax ba mu yëg ne man jigéen lay waxal amuñu ko mais loolu tamit <laughs> yàlla la mais yow lan ngay wax ñoo tas. <laughs> loolu doy na waar yaa ngi laal lu doy waar. parce que addina bi dafa doy waar. Mm. te dañu ne xuleel xaq wala kaana murran mm. nañu wax dëgg ginnaaw du dañuy rey sax nañu wax dëgg mm. mais lu waay di mën a suturaal ci doomi aadama nañ suturaal doomi aadama yi parce que addina dafa amul solo. Mm-hmm. man nag duma xas kenn kuy jël ay vidéo jàmbur di ko wili pànne ndax moo xam raison sur laquelle mu koy def mais man en personne duma ko defal nit te dara itam jaraluma ci àddina may jël wax ju ñaaw ju ñu wax ci nit wala vidéo wala photo n'importe quoi buñ na envoyé yenn vidéo yu vulgaire wala photo seetaanal nangam tat su ma paree dama koy supprimer parce que bugguma boo ko ci man ñi koy partager li may wax man xam naa ko bu baax man ci sutura lay dox ba kay ba xëy may dee ah tamit doomi imaam laa tamit judd fu baax ñu teg ma yar ma yaru lislaam def ci man diine kon mën naa def yi fu xale nekk ci théâtre bi di cappi cappi di bégal àddina di bëggal sama bopp parce que man maa ko bëgg sama amour la mais du tee tout le temps xam naa fi may teg samay gët xam naa itam fi may teg samay tànk bu baax. waaw loolu laa leen conseillé ñu góorgóorlu bu baax te xool li ñuy def te xam ne tey ku ci def sa raq wala sa way jur du la neex kon ñu xoolaat bu baax rafetaat rafetaat rafetaatal jikko yi parce que addina bi dafa jeex ba pare dangay ngay di def lu la saf nga wane ginnaaw ñu jël say raq wala say jur di leen wili pande nga nekk ci suuf te doo ko mën a faj kon nag lu waay di def rek na ko xoolaat. macha allah àdduna mu solo.